waaw loolu yàlla dogal waaw Pogba foo jëm. man yow laa topp. da ngay dem nga ni ma yaa dof nag. yow yaa feebar rek. yow xaaral ba lépp sotti rek foo jëm ma topp la. maa ngi yow ba àjjana. yaa feebar nag. kon nag cent mille yaa feebar Pas des secs. Bien, bien, bien, bien. Attendez la petite là quand vous. Voilà. L'homme le plus intelligent, pas des secs. Voilà des secs. Merci, merci, merci. Merci. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Merci, merci, merci. C'est comment le nom Merci, Wally. waaw loolu yàlla dogal waaw Poté man yow laa topp. da nga dem ah. yaa dof nag. yow laa am yaa feebar rek. yow xaaral ba lépp sotti rek foo jëm ba àjjana. yaa feebar <laughs> nag. kon da ngaa dagg quatre cent mille. waaw yàgg na laa topp. yaa feebar nag yaa feebar <laughs> Bien, bien, bien, bien. Attendez la petite là quand vous. Voilà. L'homme le plus attendu Merci, merci, merci. Merci. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. C'est comment là Merci, Wally.